fii ci Daaru Saam gi nga xam ne ma ngi nee ñu moom moom ba mu koy sañsit am na am na am na lu mu fi gis ba tax ma sañsi ko ndax sëñ Tuubaa ba ma ko nee dama bëgg nga dem sa nga dem saam xabru sëñ saam ba nga dëkk fa ci ci gàttal ba mu ñëwee ba mu nekkee njeng ba mu ko laajee njeng da ko ne njeng ak saam bi boo waree fos ba da fa mën a yendu ji mu ne ko loolu loolu dinaa sori mu ñëw fii euh, Paleen gi den sorewul Daaru Salaam bi ñëwee Paleen mu ne ko fa maanaam fii ne moom boo boo fa sax balaa sonn yegg fa mu ne ko loolu ëpp na mu ñëw fii si Daaru Salaam gi fekk genn daqaar moo nekkoon fii la ma bàyyi balaa Jóob wax ci wetu ko sëñ Abdou Wahab Jóob gi nee na nee na nee na sëñ bi ñëw nee moom nag bu ma saa di liggéeyloo gone yi day ànd ak ñoom ba ca tool ya ndax nee gone goo nekk la tudd ne léegi mu ñëw toog ci lal benn darab ci daqaar gu foofu di naafila ak def ay listixaaram xale yu jóge jambal gi yama dëkk ay xale juge jóge ñëw di yett ñax mu ñëw nuyoog moom ba noppi ne ko mu leen fu ngeen jóge ñu ko jambal lu ngeen def ne ko doon de waaye ne doo bëgg na jébbalu ci yow suñu ma sàmba leen gone du jébbalu gone des ko jébbale daal leen yeewu ñu dem waaye bi mu ñëwee ah, googu listixaar daa mel ne jàpp na ndax di wut foo dëkk ay nit fekk la fa di yett am ñax di ko defaru ne ay gone fekk la fa daa a jëm mel na ne googu listixaar jàpp na foofa nag bi mu mel nag sëñ bi euh, sëñ mun sëñ bi mun sëñ mun sëñ bi sëñ bi toog jàkkaarloo ko xabru ba rek mu ñëw fii nag boo fii nag boo xoolee si penku yëpp si xabru bi waaye dana sëñ Tuubaa da ko da ko jëkk ne waa ah, sëñ bi saam saam da làqu na sëñ Tuubaa ne ko làqu du teel gis la mu dellusiwaat ba ba mu ñëwee nag mu sëñ Masamba nag loolu taxu ko ñu koy watuloo dañu laa dëkkloo waaw mu laa xam ne kon dëkk ñëw na mu dëkk bii moo tax Daaru Saam lu wax ji bari bari bari euh, nit ñi moom ñi baax ñi bari na waaye sëñ Masamba moom bari na ku mu yemalul moom nit nag foo féete nag loo ko wax ne naa dem fa féete moo tax waaye man mag ñi ma dégg ñu wax ko ñëpp ñëpp ñëpp xam nañu du ko neexaro yi ndax xam-xam ba fulla ja ak barke ba moom la kenn doomi sëñ Basiiru Jóob moom sëñ Masàmba Jóob Saam ñu am loo xam ne tey jii dañ ko fas yéene waxtaan ak yéen fii mu jëm ci liggéey bi nga xam ni sëñ Abdourahim dañu ko jox bi fi nekkee sëñ Masàmba Jóob lañu ko jox ñu di ko nuyu lu bari di nuyu mbooloo mi nga xam ni ñoo bokk ci sëñ Masàmba Jóob di ay sëtam ak doomam ji fi nekk di Cheikh Abdourahim Diop ñu ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér ci barke Serigne Touba jamono ji nga xamee ni sëñ Abdourahim toog na ci xilaafa gi rek jamono jooja rek la ma ko daal di jox amul benn bis bu ci tege boo xam ne bi mu nekkee xalifa daal la ma ko daal di jébbal ci jébbal booboot daf ko am ci fànn yum ko doxe woon ba agsi ci man ndax jaar na ko ci sëñ Muxtaar Diop boobu moo fi nekk xalifa sëñ moo Basiiru Diop mu wax ko ne ko dafa am lu may dénkaane ci li may dénkaane ci sa njaboot laa ko soxlawoo woo ki ma ko ci soxlawoo woo nag mooy Modou Abdoulaye ba ma ko joxee téewul booba sëñ Falloot boobu mi ngi fi dund ñoom ñëpp mu jaaraat ko ci moom ma koy joxit mi ngi ma ko joxe ci kanam sëñ Saam ak Cheikh Abdoulaat ak sëñ Basir jóob imaam ci ñoom la ñoom ñoom ñoom ñoo ñoo ko fekke woon wàllu saytu gee nag bi mu nu ko joxee dafa am lu mu ci sant loo xam ne sasoo nan ko abadan di ko def bi ñu fi nekkee ba léegi lenn lu nu soxla woo def ci àddina lu dul lim nu sant amul saa bu ñu xëyee dana ñëw fii ubbi barab bi def fi laj koleñ def fi cuuraay diir bi ñu ko yoree ak léegi saa su nekk dinañ def loolu ci barab bi fu ci lu ci luñ fi gisit mu taq fi dinañ ko defar ba mu sell ci loolu ci la nekk ci jamono jooju ba léegi maa ko féetewoo abadan di ko def ko saab xëy ak saam ngont bu ma xëyee maa fi jiitu maa fi mujjit ci barab bi loolu moom moom laa fi saxal dàkk insha allah te li fi may dund di ko yor naa koy def waaw. sëñ Massamba Diop moo fi ne ak euh, sëriñ basiiru Diop ak sëñ Modou Moustapha Diop ak sëñ Fallou Diop ak sëñ ak mm, maam Ablaye Diop ak sëñ Abdou Samad Diop ñooñu ñoo nekk fii ci wetam wetu mm, càmmooñam fii nag moom fi ngay jaakaar lool ni may jaakaar lool ni sëñ Massamba Diop moo fi nekk ci biir waaw bii ci bunt bi sëñ Abdou Wahab moo fi nekk waaye nag yëpp barab yi yëpp nag menn man mi moom maa koy toppatoo waaw bu ma xëyee kay bu ma jullee suba bu ma jullee fajar kay ku dikk di nga fekk ma ubbi ko bu ma jullee géeyet di nga fekk ma tëj ko jamono jooju daal laa koy def bu ma jullee suba fajar bu ma génnee ci jàkka ji wala bala ma cee génne dinaa ñëw defar ko bu ma bu ma jullee géeyet ba sëlmal ci jàkka ji dinaa ko ubbi ba subaati ci loolu daal laa Daara Darou Salam daal 2000 daal la de 2002 bi mu sosoo it bi mu suñ indee mu sosoo it mu daal may jox samay rakk ñoo xam si ne ñoo bokk benn baay ci laa ñoo ñooñu am na ñoo xam si jàng naa leen bala moo ko bala ba bind kaamil ak lenn ci ay ay ay taalibe am si daal booy xool ñi xam si ne jàng nañ fi mokkal nañ fi Alxuraan daal man na fukk ñi nga xam si ne mokkal nañ te bind nu ay mën nañ ñeent jàpp juróom. léegi booba léegi it ñu ngi ci moom léegi nag bi ñu fi ñëwee deux mille deux trois quatre lépp xam nga ubbeegun ko suñ sama deux mille quatre la fi bàyyi ko waaw suñu waajur wuutu ko deux mille quatre deux mille cinq ba deux mille six ci deux mille six yooyu nag ci la sëñ bi defaraatee jumaa ji salaat ko jamono yi suñ saliw ngi fi ñu ubbi ko biñ ko ubbee it maa mu yónnee woon ci suñ saliw mu jox ko ci ndigal mu yebal fi sëñ Fallu sëñ Abdul Xaadir ñu daal ko mu daal koy ubbi si ci 2006 bi jëpp ma weer ba jëpp ma waaye jëmmi at mi 2006 bi la moom boobu bi ñu ko ubbee la sëñ bi jox ndigalul ñu ñu koy ñu koy jiite bi mu ko joxee ndigalul ñu koy jiite itam fekk suñu baay bu baax bi nga am si ne moom moo ko suñu wéy moo ko suñu wéy jur yi benn lan woon ñu doyloo ko doyloo gu wér ceeŋ bi ñu ma jiitalee it teg ci sama rakk Baay Siin teg ci sëñ Aliyun mii teg ci Oustaz Cheikh Sall noonu la noonu la noonu woon ba fi mu noonu la nosoo ki ci manqué daal mooy sëñ Seex ca moom it daa nekk ci waar woowu ndax bi nga xam ne jumaay xalbaan ubbi na ci amoon imaam la ko suñu jox mu dem di leen jiiteel am ñooñu ci kër gi lan mu dem di leen jiiteel seen kii ba fi mu toll nii ma la wax moom man maa fi nekkandi ak seen Aliyu mi man su ma su ma amee uh, jotadi wala sama wér mayu ma ko sëñ Aliyu moo ñu wóotu te dayloo googu suñu wéy jiite dayloo nag moo tax ba fi mu toll nii ma waxee tey jii nii nii nii dayloo googee bi sëñ Abdou Taye ñëwee da koo continuer mille 2006 daal mooy li nga xamante ne si ni moom moom moom lan kii moom lan ubbi kii ubbi ubbi ubbi ubbi jumaa ji daan wax sëñ Abdourahmane Lo dañoo wax ni wala boog waaw ah, daan daan naa fi laa ñaari ñaari rakka alxuraan noonu la ko laa def téerab kaw bi rakka bu suuf bi rakka bu ñëwee fekk sëñ Massamba Diop ni man ni moom man na loolu kenn dox ko alxuraan bi mu ko tàmbalee bu mu xëyee mu ne ku la nga man daal di wut lu mat nangam ci ngóor loo xam ne kenn xamul nu mu toll it ko sëñ Tuubaa man xam ndax fekk ku la fekku li nga ci xam du bari waaye nag ay njabootam laa jaxasoo lan ak lëf ci rakkam ko jox sëñ Abdoulaye Diop ak njabootam si Baye Sëriñ Diop suñu Bassirou Diop ñi ñëpp ku ci ne jaxasoo na ma ak yow li ma xam ci moom daal mooy ay xekkam yoo xam ne lu mu daan waxtaane la yu am njariñ ndax fekk it dafa mën na jàng ba nga xam ne moom suñu Masamba euh, taalibe gi sax yéeme woon na waaye jàng la dàqan ñëpp ndax daa wax naan daa wax naan daa wax naan njàng sa kàcc sa jàng li mu baax ndax njàng sa njàng sa kàcc sa loolu daan wax euh, nekkan koo xam ni ku mu ku mu ku mu ku mu layool yaay la ndax dëgg rek lu ko yàlla xëy na ku dëggu la woon

sëñ Ibra Kumba Sil wala boog sëñ Daaru Asan Njaay radiallahu anhu sëñ bi xëy ko ca këram ca njaareem nuyu ko ba noppi ñuy waxtaan ñoom ñaar ki fi ne nga ndax sëñ sëñ Asan Njaay moom sëñ Tuubaa la wax daa jubóog boromam ñuy waxtaan ba yàgg mu naa dina sëñ Masamba man de xam naa malaaka yooyu ñuy wax de raqiba gàtt de ñu naan ñuy bind yiw wi kii bind safaan de xam naa kii bind safaan de dana fi ne ba jan safaan du bind dara de yow Masamba ne ko ah mu ne waaw mu ne ko man de xanaa dana bind waaye dara du fanaan de mu ne ko Masamba de maa la jëkk wax waaye yaa ma dàq wax xam nga wax yooyu dafa yéeme yéeme goo xam ne maa ngi see jariñu am na koo masanaan sëñ yaa ngi sa julli yu bari ak sa koor yi rek kawaay sëñ Masamba ne ko waaw si laa nekk na ndax man damaa bokkul ak yow yow bu loon sëñ Tuubaa doo wees semb ñett te bu loon may dara waaw <laughs> ah, ah, bu loon sëñ may dara beneen bi daf ni Masamba euh, ci juróomi atam la jàngi alxuraan waxan naa ko fii benn kii bis yaa ngi seen bi juróomi atam la jàngi alxuraan ci fukki atam la mokkal alxuraan ci fukki atam ak juróom la ngi ci xam-xam ci ñaar fukki atam la denc soxnaam si jëkk te soxna si jëkk si ñu ko fi indi ci la wut ko fi ko fi wétali si ndax Masamba xawoon ku mut la ñaareel ku mut la aawal la xam Masamba musta mustafay faat Masamba musta sembum ñett Masamba musta jëloo yett àndar Masamba soxna musu ko ne jeex ci waar Masamba musta jaar fi yoon ba nga xam tànkam fu masa jaar mboolu topp ci moom waaye lépp ma teel a xam sëñ bi sax mën naa see bañ a fekk loolu bu teel a xam sëñ Tuubaa nga xam ne taalib ak taalib yi kenn tollewu ko ne moom mu nekk koo xam ne ñëpp a ko daan yéem ñëpp a ko daan yéem sëñ Masamba ndax ah, xam-xam bi ak dal gi ak fit yi te itam li ma la wax rek xam nga loo amam Euh, xam-xam ak loo maanaam loo loo am daraja te sa xam-xam yëggu si maanaam foofu doo fa yegg waaye si ma sàmm xam-xam bi ma ko boole ne kenn mosut a gis dalaa wax naan jàng leen njàng njàng sa njàng sa kàcc sa njàng sa kàcc sa loolu daan wax kon ku ne xam na ne du woon moroomam gone li boobee moom fii ñu toog ni mooy cosaanam fii ñu toog nii nii fii la nekkan waaw fii la neewoon moom bien ah, <laughs> néeg boobu ci nekku sëñ moo jub la la fi la fi nekkan nii bi mu fi nekkee sëriñ Fallou Mbax ganase na ko fi sëriñ Fallou Mbax ganase na ko sëñ ma jub la fi ganase woon fii boobu ci nii boobu mii néeg bi mi ngi fii waaw ah, sëñ Abdoulaye ñëw fi ay yoon sëñ moom mën naa ne ay yoon la fi la fi ñëw moom daal doomu sëñ Tuubaa yëpp mën naa ne daanaka ñëw ñëw nañ fi léegi bi nga xamante ne si nag sëñ Abdourahim toog na xilaafa nag war a bay aw sasam léegi fi ko sëñ bi bàyyee woon mu mu mu sos fa ndax nee na moom du sos day sof macha allah maam fa sëñ bi yemoon rek fa la daal sofi mbiram rek di continuer rek bi nga xamante ne si eh, mi ngi defar bâtiment bi te palaaj bi ñu xool ci kër gi moo xam ni ci kees gi la war a mën a xaj ca kees gi nii bi nekk fi sëñ bi dana moom nii bi moom doonu luy tuxu moom daal benn palaaj bi da koy fekk si ba ëmb ko wala mënu koo fekk si xëju fi nga xëju fi bi xëju fi yóbbu ko feneen waaye bi nga xam si xool nañ ko. ba bi man fee nekk ba ëmbaale néeg bi moo waral ñu toxal néeg bi yóbbu waaye néeg moom fii mooy cosaanam. Mm-hmm. fii la nekkan. Mm, ko fii la nekkan nga xam si bâtiment bi bâtiment bi rek a tax ñu toxal ko. Mm-hmm. bi nga ko toxalee it na orma bi ca. Mm-hmm. sëñ bi dalee noonu bu ku munta ëmb moom bâtiment bu mu nekk fii waaye néeg bi moom du du du du du gent du gental moom. waaw mooy li nga bi. néeg bi li cosaanam mooy si Massamba Diop ci la dëkkoon ci néeg bii moo doon néegam. néeg bu mag la woon bi mag ñëpp ci lañ ko xamal ba ci gone yi ñu demee nag bay defar kër gi di ko di ko di ko soppi nii xew ci jamono dañ ko beraat def beral ko kër euh, euh, néeg bi moom kenn jëlee ko fa mu nekkoon dañoo ko ñëw tabax ci biiram rek léegi moom lañ tuddee nag daara kaamil def ko far muy néegu kii ko nii alxuraan rek ak xasayit moo fi ne mu loolu mooy cosaanam suñu ma sàmm nag jaamana fi yàlla lu ne